rappeur mooy xulóob rappeur dañ lay saaga yow miy àtte sax ñu lay saaga te doo yëg ni ñu lay saaga ndax loo xam ne appareil pikiri pikiri pikiri doo xam lu ñuy wax kooku pikiri pikiri pikar baax doo xam lu ñuy wax ñoom seen i xuloo neexut a dugg. am nañu dëkk ci bari nga tànk laate yaa ngi mandi te tëddiwoo yi dof la réew la wala xamadi jot nañu tëmbal use ci barigo.

danga tëb bay saaga waat réewande wala danga tuxi boor nekk saaga na ndaayam ndax dafa yar yi di nëbbi koñ bi saa yu fa kenn fi nelaw gis naa fi ku poñe baayam bu bëgg ko duma léegi ku foqati li ñëpp bokk ba ne ñu ko jox am nañu dëkk ci bari nga jànq laate yaa ngi mandi te tëddiwoo yi dof la réew la wala xamadi jot nañu tëmbal bouse ci bari ko fukki dërëm a taxab raxi saaga moromu ndayam yére bi ñu wute tax policier toroxal moromu mm, baayam rewande comme taatu waxande ñëpp am nañ ko ban ñëpp nañ ko wan gënoo fi réew parce que danga am daraja noo mënti mel utiliser nga satal sa papa dépensam bi matul nga ne danga geddale ko ceebu keccax ba sibut ni am na ñu du lekk ba fekk sib ni yaru ak a baax bu nekk saaga na moromu ndayam ndax dafa yam ki dina kii mooy doomu xaj def naa fi soo bu am saaga pourtant dama yeeru waa léegi si silu saaga na askan bi moom dafa yeeru boxeur bi sànna ci mbedd mi moom dafa yeeru